بها الحمد لله الكريم ذي المنن على استخالي بفرود وسنن سكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفاقني ما قني وقادني إليه taxalli min baadi ma hazaba bi taxalli ngeen jëf bismillah seen émission Ila Touba ba tey ñu leen di toppal sëriñ bi ci jaar-jaari biir gànnaar gannaaw tuntu muhsin ak sarsara yegg na nag léegi ya barab boo xam ne fekk na fa ay boroomi xam-xam ak i muqaddam muy gën a leere ci kàddu sëriñ Fallou Bousso Tamba. jërëjëf sëñ Makumba kon mbokk yi toppoon nañu ko baax ci Cheikhul Khadim ci yoonu gànnaar wi ba ni mu ñëwee sarsaara ba jot al maxuus min allah allahi muy al maxuus boobu ginnaaw bi it xam xam nañ ni jotaat na beneen nusxa beneen version ci werd bi muy al kaamil nga xam ne boobu moom ma ko jot ci wér gàmmoo waaye ginnaaw bi sëñ bi jógee sarsaara la dem nag fi ñuy tuddee jaraariya jaraariya nag sëñ baa ngi ko tudde woon biirul xayri foofa it ay nit ñu baax la fa sëñ bi fekk foofu mooy fi nga xam ne fa la ñu ñuy tuddee al alawiyuun yu bari ci ñoom doon ay bokki tijaan yu baax di ay naari gànnaar yu xam ne ay tijaan lañu bokk ci taalibi cheikh abul abbas cheikh na ahmed tidiane moom itam foofa lañ féete nga xam ne soriwul lool xëy na maanaam sar saara war naa toll ci ñaar fukki kilomètre juróom rek ci la foofa foofee la sëñ bi dem bi mu demee itam nag ni nga xamee ne noonu la ko waa sar saara wuy si woon ak waa tuntu moxsin it noonu rek la ko waa jaraariya defe ñoom itam ñëw ànd ak moom gëm ko rafet ci moom njort ba àgg na ci seen muqaddam yu mag ya sax dañ ko joxoon cër te buñ ci tuddee ku mel ne ahmad ibnu badd dana dégg nga dana doy nga xam ne muqaddamu tijaan bu mag la woon waaye dafa rafetoon jot lool ci sëriñ bi xam nga moo ko joxoon téere boobu ñu tuddee al mawaahibu ladunniya lil xastolaani yi xam ne suñu ma damit nett na ko sëriñ bi bëgg ci lool ba fàggul ko ci sax kàttanu yàlla daraja ak maqaama yu kawe kawe kawe moom itam moo sàkk woon ci sëriñ bi sëriñ bi nuyul ko maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nuyul ko itam sëriñam Cheikh Ahmadou Tidiane sëriñ bi xamal ko ne ko yonente bi fay na la delloo ab nuyoo Euh, sa sa sëriñ bu baax ba Cheikh Amadou Tidiane itam delloo na la ab nuyoo ba nga xam ne ba mu ba mu ko jotee xaal ju tara tar da koo jàpp ba fu mu toll rek day ming fu mu toll day ming rek di yéemu ci mbirum sëriñ bi moom Ahmad Ibn Badd moom yàlla dogal na sax euh, sëriñ bi def na ci moom ay bayit bi nga xamee ne mi ngi waaj ngir wuy ji boroomam te yàlla xamal ko sëriñ bi te boobu fi sëriñ bi nekk ak fi mu nekk daanaka doxub bis la wala doxub guddi la ak bëccëg ba sëriñ bi wut ay ndaw yónni leen ngir ñu dem jaalal ko boolee xasida goo xam dañu ko tudd léegi ci xëy na jotaay bii ñëw incha allah dañ ko tudd moom Ahmad Ibn Badd moom yi xasida bis bi tey jii Fusdi Mustafa jaglel ko Mariama mu selmi mi yaay Jésus ñu tewlu ci Serigne Abou Mbacke Bachir bismillahi rahmaani rahim alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Bokki no ngi len di nuyu di ñëw ak yéen ci xasiid ak bis bi gannaaw nu len ndokkeelee ci wër wi ak ci bis bi nu jëm di magal gi di ñaan yàlla fekkaloonu ko talloonu ko tay nu àndi leen xasiida Kossity xasiida la go xamne Serigne Touba da ci tag soxna Mariam way juru yonante yàlla Isa alayhim assalaam waaye lépp da koo delloo ci alquran ne alquran gise soxna gise soxna Mariam gise ko sayyiduna Isa loolu rek la sëñ Tuuba indi wax na ci biir li tax mu mu tagg ko daf na ko yaquuduni li mat xiki maa anki fadlan qad xukki li ma yóbbu ci ma tagg mooy lañ la nettalal ci nettalil ci lu baax te alquran jiitu ca xasida gi quraaniya la Sëriñ Tuubaa da ko tënkee baati alquraan yam doon wax ak soxna Maryam keroog ba sayyiduna Isaa di waaj a feeñ ci moom naan ko fokk fokku lii washarabi bi maanaam lekkal te naan te dalal sa xel ndax booba day dafa da ko toll fenn te xamaluñ ko borom kër la war a topp ca yooya ci xeeti coow ak yooyu sunu borom nag xamal ko ne ko dalalal sa xel te lekk te naan baat yooyu la su sëriñ bi tënkee xasiid ak fóositi tàmbale ko fóositi bi war warfil xasanaat sayidatan li muxsinaat mariamu fuqti muqinaat inda alladi lam yudraki ndabul mbaax ndabul yiw yi bañ ko duyee ba mu fees ko yaa ko yanu yow soxna Mariam sunu borom da da ne ko woon tànn na ko ci kaw jigéeni mbindeef yi moo tax foqti mu qinaat yaa jiir yaa kawe mbooleem jaamukati yàlla yu jigéen yi fa sunu borom waaye ci biir tarjumaan ji sëñ baa ngi ci wax sunu borom yaa man qaala laa nufarriqu bayna na min rusuli yonente yi nun jullit ñi duñ ci taqale kenn niñ gëmee sayyiduna muhammad noonu lañ gëmee sayyiduna isa noonu lañ gëmee yonente yépp duñ taqale kenn ci yonente yàlla yi ñépp lañuy gëm lolu boko defut amo pass pasu lislaam alayhi salaatu wassalam sëñ tubaa di wax soxna maryam kun fa yakunu laki qaat xayra rasulin tiqat wa bi kifaada du tiqaat wa lam yakun bi mushrik kun fa yakun moo la indil yonante bii di yonanti bu bax te sayyiduna isa sunu borom waxona ci alquran inna matala isa inda allahi ka matali adama xalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun kun fa yakun jooju noonu ko alquran waxe ne lako ko sëñ tubaa dëggale ci xasit ak nag képp koo xam ne am na pas-pas dana taxe ci yow bu fekkee bokkaaliwul yàlla na fekk mu def yàlla muy kenn ni mu ko doone ma ngi koy ma ngi koy ma ngi koy wax ca biir yi ga ne ko anti sulaalatul kiraam maa amma naxwa ki xaraam mosoo def luñ tere kon tuuma yañ ko doon teg ni ko alquran seetale sëriñ bi seetal na ko ci biir fuus di ne ko yaa umma ruuxil maaliki yaa umma jaalil ki ابن كلاب هالك عند العلي الممسك لولو موي لن تومال سيدنا عيسى ندن كو راي سيدنا ابن كلاب هالك سادوم ديوت القران راي جفنديكو بالوب الكو جوبلو تي فاتو لو ملنا لام وخون سيدنا يوسف حتى اذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا موناكو فاتو سونو بروم يكتي kon lépp sëñ Tuubaa da koo delloo ci alquran tagg soxna Mariam wana ci ne jullit bi moom nim nangule sayyiduna Muhammad ni lay nangule yonente yëpp alayhim salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu aadama gi yaa ko defoonu sàll yal na ko yàlla dolli may gu sell masamba joobi ta ngi dee fi joobe te yaa ko may may gu ko dee fi joobe te ibra saarit yaa ko fal may ko ngërëm ba képp nit di ko siyaaraaka gërëm sëriñ Mor Seck Rijal borom Gerle Seck lanu leen tànnal tey jii Rijal ji sëriñ Masamba Diop Samb moo ko indi ci jotaay bu ñu amoon ak Cheikhul Khadim dina gën a leere ci kàdduy sëriñ Mame Mor Mbacke. lenn ci ak tënk ci dunduk sëriñ Mor Seck moom sëriñ Mor Seck Rijal mi ngi gën a àddina ci atum 1870 way jërëm bu góor mi ngi tudd sëriñ Mor Diabou way jërëm bu jigéen mi ngi tudd Soxna Hafsatou Fall moom sëriñ Mor Seck Rijal mi ngi ñëw ci ku tedd ki di borom Touba Ngerem ci atum 1902 fekk sëriñ Touba Darul Manaan nganuk maam Thierno Ibrahima mu jaayante fa ku di ki di borom Touba Njarim sëriñ bi nangul ko ak jaayanteem sëriñ Rijaal sekk nag daal di am digal ci liggéeyal ku di ki di borom Touba Njarim sëriñ Touba am na bis ci Njarim mu woolu sëriñ Rijaal Seck mu ñëw mu ne ko dégg na Mor Seck du julli du woor demal nga wut ab der ak setala doomi soxna day julli day woor ba sëriñ Rijaal Seck jóg di dem mu fette si ko mu dikk mu ne ko analoo ci jublu sëriñ Rijaal Seck ne ko Mbàkke man de ba ma jaayante sama diine ak sama lislaam nangul ma ko ba léegi amatuma soxla ca la nga ma joxoon rekk laa nekk yow xaadim rasul nekkal la ca naaj wa di sab liggéeykat nga nekkal ñu ci kër gi di suñu bindkat am na bés ci njaareem ku tedd ki di borom tubaa njaareem sas ko moom sëriñ di jaal sekk ak yeneen fukki nit fukki nit yi ànd seen yoon sëriñ di jaal sekk moom ber aw yoonam moom dongo wax na ne xàbbaan la nawete ci at moomu booleeg bépp liggéey boo xam ne xam na ne naqariwul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala rek liggéey na ko ci at mooma jaar na la gën ca Cheikh Issa Diène mu jox ko ab lampe fatafor ne ko mako duggé ci sas wi ba muy jébal aw sasam ku tedd ki di borom Touba Njaareem tombe fukk yi andon di jébal ci seenu sas sering bi wax serigne ma Samba Diop Sam ne ko nemmikul ma mu nemmiku ko mu ne ko gannaaw ba nemmikul ma li Mor sék am mu nemmiku ko ne ko Mor sék day jambar la lol li nekk ci keesam gi day ëpp na fukk yi andon amna na fanweeri dërëmi ngurdu ak ñett wéccet mu ànd ba jégé ku tedd ki di borom Touba Njaareem mom serigne Mor Rijal Sénégal taalal ko làmp ba ko Cheikh Issa Diène joxoon sëriñ bi ne ko Mor Seck lii lu mu mu ne ko mbind mi ngay bind ci sa sang bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làmp bi dina man di leeral tuuti te tàngoor yi di la sonal sëriñ Massamba Diop Sam ne ko Mbàkke kii day jëf na jëfi rijaal sëriñ Tuubaa ne ko sikkuwul rijaal bis boobu nag la tuuru rijaal wa jip am na bis ku tedd ki di borom Tuubaa ngerim woolu ko moom sëriñ Mor Seck rijaal ne ko lu tey doon mu ne ko altine mu ne ko talaata àllarba alxames ajjuma may yalla bu mu ñu ñettel wax nañ ne ñam yi nga xamne ne la ko tedd ki di borom Touba ngarim di bayu Cheikh salihu mbake doon jëfandikoo de mom Serigne Mor Sekri Dial moko ko doon togg ci loxol boppam nee na ko tedd ki di borom Touba ngarim benn bis togna serigne bi dand ko lu sori di bind akamas bam mu mu ne ko Mor Seck mu ne ko mbake mu ne ko ndax xam nga numa tuddu Serigne Mor Sekri Dial ne tek ko tedd ki di borom Touba ngarim di bind bam mu ne ko Ahmadou la tuddu di bindat akamas ne ko Mor Seck mu ne ko mbake mu ne ko ndax xam nga fuma dëkk mu ne tekk mu ne ko jannatul firdawsil ahla laa dëkk firdawsil ahla jooju képp ko am ndombal tànk wala suñu borom subhaanahu wa taala gërëm la fala la yàlla wutal kër waaye nag sañoo faa dugal kenn xanaa seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ya doon xare badar ak moom moom yi foofii laa doon jënd te jar na waaye nag gannaaw rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn sañu faa dugal kennam ne ko nag waaye ahmadu mii ngay jébbalu wut ci man ak taalibe ba am ko lekk yowmal xiyam foofi laa la wutal kër benn bis ku tedd ki di borom Tuubaa njaarim nee na ko moor Seck mu ne ko Mbàkke mu ne ko yaa ngi dégg Mbay Saar di ma wooye yàlla mu ne ko aha kay mu ne ko xam naa lu naqari doomi soxna yi la ñoo ngi koy xul rek nag ku tedd ki di borom Tuubaa njaareem ne ko tur woowu nag dee nañ ma ko ci barab yu màgg yu sell yu sori ci at yu yàgg te suñu borom tëlagul aadama waaye nag tey jii Abdullahi wa xaddiman li rasulihi rek la Mor Seck moom ku tedd ki di borom Tuubaa njaareem ba tey mooy wax ak sëriñ Mor Seck Rijaal ne ko Mor Seck mu ne ko Mbàkke ndax xamoo ne kaamil yàlla rek moo ko ameel boppam yónnente bu mu mas a yónni day jukki lu sa jamono soo noppee delloowaat jukki ba ca kaamil gisul man Ahmadou gisul kaamil bu mag ba man la ñu daan jukkee di yónni yónnente yi sëriñ Mor Seck nee na li ko ko tedd ki di borom Touba Njaareem di wax ci jataay boobu bëri na lool am na ci loo xam ne sax nag du ko nettali moom ko tedd ki di borom Touba Njaareem bi mu waajee sax nag bay bëgg ñibbi aljanna woolu na sëriñ Mor Seck Rijal jox ko leetar di ko sas ne ko boo ma fi fekkul te fekk fa ku mel ni Mouhamadou Moustapha nga jox ko ko ay gàtt yu mu ko sasoon la ak diw ga ba mu dikkee indi sas wa ca la fekk ku di borom Touba Njaareem ñibbi Touba ba ji sëriñ Mor Seck Rijal lañu toftal ci ginnaw ko tedd ki di borom Touba Njaarim ci lu leer nañi serigne Mor Seck Rijal amna tawfiqi tawféexi mujj liggéeyal ku tedd ki di borom Touba Njaarim yàlla nañ ko yalla fayal. jere ngeen jëf seen émission Ila Touba yegg nañu ci gan gi tay ji ñuy dalal sëriñ Fallou Sylla Daraman di kat di gëstu itam ci yoonu mourid serigne fallu ñu ngi lay nuyu. jëf serigne makuba ñu ngi lay fay. di wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñuy tambalé ak njang mi njàng mi rek mm, mm. yitte ji nga xam ni mm. Cheikhul Khadim joxoon na ko ko ci ak nekkam jërëjëf mbokk yi ñuy déglu fépp waaye mën a nekk ñu ngi leen di ndokkeel ci émission bi ñuy wooye Ila Touba ma di ko ànd ak seen mbokk sëriñ Makumba bi sëriñ Makumba njàng bi si fa am muy njàng mépp muy njàngum diine ak mépp njàng mu am solo lu sëriñ Touba jox yitte la rawatina njàngum diine te alxuraan jiitu ca ak xam-xamul islaam سرين بدفو وخنا يقود احمد الى السعاده يدعو الملا بالعلم والعباده تل وخنا فالعلم يحيي قلب من تعلم ينبر الخلب كما يجل العمى وخرنا واعلم بان ما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فاصبرا وخرنا ومن نهاكم عن التعلم فالنهي الى الضلال يمتمي سرين بنينا احمد ميغا خمنا دفا ووتا جيمي تي اكتخي انور دوما ادما أنا وو نيت ني غير وو بور لين ak yëkkati leen jëmale nit ci jikko yu rafet ñu mën a tabax àddina am àllaaxira ju rafet. nee na nag principe bu woote bi mi ngi ko teg ci xam-xam ak jaam yàlla daal di wax ne xam-xam ci boppam mooy dundal ab xol nit bu jàngul xolam du dund. Hmm. wax ne itam xol itam li tax mu mën a leer ba xàmmee dëgg ak caaxaan mooy ëmb xam-xam xol bu ëmb xam-xam. daal di wax ne xam-xam itam ci la nit mën a rawee moromam moo xam xam-xamu diine la moo xam beneen xam-xam la waaye nit ku nekk rek la nga ràññi xam ci rek ca rawee sa morom moo tax mu ne kon nañ muñ coonoy xam-xam te xam-xam lu am solo la wax ne képp koo xam ne nag bëgg naa dox sa digganteeg jàng njàng ma mën a doon te muy mu am njëriñ na nga xam ne kooku dox na sa digganteeg maanaam nar laa yóbbu ci ak réer mm-hmm. te réer du avancé àdduna dee su ci amee àlaxira mm-hmm. kon importance bi ko sëñ Tuubaa jox bu rëy la rawatina nag jiitalu xam-xamul islam bi nga xam ne alquran mooy ndey ji ak sunna te loolu boo ko boolee mooy juru xam-xamu sharia yi yëpp kon xam lu am solo ci biir woote sëñ Touba. ndax sëñtubaa Touba ci boppam. Hmm. am na anam woo xam ne ci la bëggoon ñu koy jàngalee maanaam méthode boppam. waaw sëñ Touba bi mu ñëwee fekkoon na lislaam nit ñi di jàng di mokkal alxuraan ñii di am xam-xam. waaye dañ ko généraliser wutoon dañ koo defoon ay famille famille yi ñooy jàng alxuraan mokkal ko famille yi ñooy am xam-xam yeneen famille du am cër ci xam-xam bi mu ñëwee nag mu gis ne xam-xam képp kuy dund te nekk ab jullit rek am nga cër ci xam-xam mu daal di woote jëme ci xam-xam catégoriser nit ñi ñetti xaaj muy ndaw ñi nga xam ne dañoo toll ci sàkku xam-xam képp koo xam ne ñëw nga yaakaar Serigne Touba jaar ci moom ngir nekk ab jullit di ab taalibe mu yar la aw yarin woo xam ne moom la yare ay nitam su dee xale bu ndaw li muy njëkk bëgg ci yow mooy nga wattu alxuraan mokkal ko sàkkoon naa ay daara sàkk ay jëmm yu ko ci nekkal ku mel ne sëñ Abdourahmane Lo ak yeneen i jëmm waaye sëñ Abdourahmane moom moo ci nekk gënoon a nekk ku officiel nga xam ne moo taxawoon ak moom ndax taalibe ay xaaj lañu ñi taxoo woon ak Serigne Touba dëkk ak moom ak ñi nga xam ne dañoo dëkkoo ci seen dëkki cosaan di siyaare Serigne Touba di dellu ci seen dëkk ñi nga xam ne ñoo taxawoon ak Serigne Touba jox seeni njaboot Serigne Touba delluwaat ci seen dëkki cosaan ya bàyyee Serigne bi seeni njaboot jooju Serigne Abdourahmane loolu leen jox ci wàllu alquran mu am itam ñi xam ne bi ñu ñëw ci Serigne Touba dañoo wattu alquran mooy mokkal nañ alquran waaye tàmbaleeguñ seen njàngum xam-xam ñooñu itam Serigne bi bi ñu ñëwee daf leen a jox maam Thierno Ibrahim borom Daaru Mooti nga xam ne Serigne Touba moo ko jàngal xam ba mu xereñe xam-xamul islam yépp xam-xamul islam nag li ci njiitu mooy tawxid ak fiq ak xam-xam bi nga xam ne moo lay jàngal jikkuy rafet mooy al ihsaan loolu nag moo tënk rek mboolem xam-xamu sharia al islamiyya waaye itam xam-xam boobu itam jëmtukaay yi nga koy gëstoo mooy nga maîtriser sa langue arabe langue arabe itam dafa am benn partie bu am solo ci biir njàngale mi muy dafa am lu ñuy wax euh, ulumul lugha langue bi ci boppam dafa am ay ay ay matières yu koy téye ci bu bu ci anamu arabe lu mel ne naxwu sarf ak yu demee noonu mooy jëmtukaay yi nga xam ne ci la ñuy gëstoo langue arabe soo maîtriser langu arab nag langu arab boobu dafa mel ne ndab la ci ngay def xam-xam bi xam-xam boobu nag daa am bu tudd tawxid am bu tudd fiq am bu tudd al ihsan am xam-xam boo xam ne ci bu am solo la ci lislaam muy sira annabawiya ñu koy waaye taarix wala ashiru al arabi maanaam maanaam maanaam maanaam lu mel nekk al adab wala mboolem xaaji xam-xam yi nga xam ne xam-xam am na ko ci loo xam ne day jëmmal diine ak loo xam ne day jëmmal culture islam yooyu yëpp nag soo amee langue bi ba noppi ci nga koy mën a gëstu ci lañ la ko gën a jàngale hmm. mboolem xam-xam yooyu yëpp nag maam Thierno moo koy roon ci biir yoonu murit moo tax boo mokkale alxuraan nay dem ci maam mu jàngal la euh, xam-xamu langue bi jàngal la li langue bi di jàngale muy xam-xamul islam hmm. ak xam-xamu cosaan bi nga xam ne moom la islam xam muy histoire jaar-jaar yi yonent bi saa sam ak culture arabe bi nga xam ne poésie yi ñu bind ci arabe ak euh, udabaa u yeeg lépp loo xam ne daal ki gëstu xam-xam ca loola lay jaar ba dégg dégg lang bi dégg diine ji loolu maam Thierno moo ko yoroon. Mm-hmm. loolu nag ki ma ko waxoon mu ne la ko Serigne Touba doon jàngal. mu desaat beneen xaaj boo xam ne nag mooy ñi nga xam dañoo ñëw passé nañu jàng njàngum alxuraan passé nañu njàngum xam-xam te aase nañu am nañu cinquante ans wala soixante ans door a ñëw ci Serigne Touba euh, ci moom te itam ñëw nañ taqoo nañoo moom waaye passé nañ yor àlluwa di jàng passé nañ yor téere di jàng na am sax xam-xam kenn ko passé minal mahdi ila lahdi yétu saa sam nee la ci say laytaay ba bi ñu lay tegaat ci jaat gi foofu mën ngaa jàng waaye léeg-léegi dafay am jàng moo xam ne dafay yeex ci mag hmm. te ñooñu moo leen jëlaloon boppam ñooñu ne da doon jàngal ci ay tomb maanaam dadaa am waxtu julli rek mu salmal daal di woo ñooñu daal di rëdd ci suuf tombal leen ay tomb ne leen lu baax a ngi nii safaanub lu baax a ngi nii maanaam lu baax a ngi nii lu bon a ngi nii hmm. lu baax lii boo ci jëmee lépp lu baax lépp lu yiw lépp luy njariñ day ñëw fekk si la lu bon lii boo ci jëmee lépp luy bon lépp luy ay lor day ñëw fekk si la xam nga loolu mënees na la ko misaal ci nga xam ne kon lu baax moo gën lu bon su ko defee nag noona la leen daa jàngale mboolem xeeti xam-xam yi mboolem loo xam ne comportement jullit du waroon naa jàng ab téere fekk ko fa mu yar ci comportement yoo xam ne da ngay mel ni ku jàng di gis texte bi ca téere ba alquran ja wala ca hadis ba wala ca siira ba waaye da koy def ci say jikko di ko def ci say pratique ba da ngay mujj ñi jàng ak ñi jàngul bu ñu toogee ñi jàngu te sëñ bi formé leen dafa mel ne dañuy pratiquer li li li ñuy jàng xam hmm. loolu daara jooju sëñ Tuubaa moo koy roon boppam génn na ci mbooloo mu bari mu yar leen itam ci wàcc seen bopp yar leen ci nangoo ñàq joxe yar leen ci nangoo liggéeyal boroom xam-xam nangoo liggéeyal ñu baax ñi loolu sax moo tax nga gis ci biir yoonu murit ñoo xam ne sooy jaa jaa jàng seen jaar-jaar lañ gën a mooy nangoo liggéey joxe ak sonnal li ñu te yàlla tax mhm. ñooñu dañoo génne ci école bi nga xam ne école tarbiya la mhm. te école tarbiya mooy fii li am njàng di jariñ rek lañ def ci ñoom mhm. ndax bii ñëw yor nañ njàng kon ñetti façon njàng yi moo amoon Sëriñ Tuubaa waaw mais bu ñu xoolee sëriñ bi taarixam ay jaar-jaaram fu ne mook daara fu ne mook fu ñuy jàngee muy eh, Mbacke Kajoor Mbacke Baari muy Daaru Salaam muy Ndaam ba ci Touba mais ndax Touba mënees na ko méngale maanaam ni mu ko bëggee ñu koy defee ak dëkk yi nga xam ne moom laa lim waaw xam nga Touba dafa am spécialité bu mu am dañuy wax dañuy wax dafa am daatiya autonomie ci wàllu aw déggin ndax Touba li ko wutaleeg dëkk yu bare bari sëriñ bi moo wax ne bi mu koy sanc benn yéen rek la amoon mooy gàddaay ñëw ci biir Touba ngir taxawal diine maanaam espace boo xam ne diiney lislaam la fi bëgg tasaare jëmbat ko fi former fi ay nit yoo xam ne maanaam njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy dund te loolu nag kon su fekkee loolu la faawu kon mu am njàngaleem lislaam moo xam ne day dëppoog yarinu dëkk bi dëppoog itam bëgg-bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoog itam ni sëñ Tuubaa dégg diini ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa nag moo tax daara moo ko sañcoon daara Tuubaa daara njàngaleem daara moo ko sañc amoon na fi ay yoo xam ne dañ fiy jàngale alxuraan ba nag mi ngi fi am na fi ay daara yoo xam ne dañ fiy jàngale xam-xamu diine te booba ay majalis lañ ko tudde woon njàngale moo xam ne njàngale majalis la majalis mooy maanaam boo jàngee alquran ca daara ja da ngay ñibbi si sa kër baay am sëriñ boo xam ne ci këram la nekk bu tàkkusaanee mu génne seesam toog lal basangam ñi mokkal alquran ñëw di jël bind xam-xam di leen jàngal fiqhul islami di leen jàngal sarial islami di leen jàngal langue arabe maanaam ñuy formé wu ci diine loolu lañ tudde woon majalis loolu nag wutaluñu ko woon espace boppam nit ku ne sa kër rek nga doon defee ak ni nga ko mënee loolu moo tax Touba njàngaleem majalis moo fi gënoon siiw ak ko woon mu nekk kër léegi-léegi waaye kër itam daana am daara ci biir nga xam ne day am koo xam ne day opté jàngale defar këram gu yaatu benn partie mu dëkk ci ak njabootam benn partie bi ay doongam dëkk amoon ci Touba te it mi ngi fi continuer di am ba noppi ba nëgë ni li sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi daa waxoon ne waj'alhu da'ban maskana taallumi mm-hmm. ba faw nag ma ko def muy barab boo xam ne dañ fiy jàngee dañ fiy jànge wa mawdi al fikrati wa tafahumi waaw mawdi al fikra nag moo tax ñu ne al fikra ci boppam moom muy muy muy idéologie xalaat ci boppam lépp ci mën a nekk xam-xamu diine mën na ca nekk leneen mën na ca nekk wa tafahum itam ay compréhension itam mën nañoo dégg diine mën nañoo dégg xam-xamu jamono mën nañoo xam lépp loo xam ne ay nit dañ koy jàng di ko xam kon Touba tëjuwut ci buntu xam-xam waaye li fiy cosaan te di sax fi ay reen te ñu ko fi jëmbat muy originalité dëkk bi muy daara moom du fi mos a jóge mukk hmm. waa wa li fekk ñu ngi dégg njàngaleem sëñ tubaa daara it dañ ko fiy jëmbat ba faaw li fekk maanaam ñi fi nekk sëñ tubaa ñu ngi opté ne sëñ tubaa daara moo ko fi gënaloon hmm. waaye nag loolu nekkul loo xam ne dàq na meneen neen jàng ci biir. Hmm. kon de mooy tontu nga daanaka sama laaj bi woon ci euh, njàngum français mi. ndax euh, dafa mel ni réeroo am na ci ñàkk déggoo am na ci. Euh, yow noo ko xalaatee njàngum français mi ndax lu fi war a mën a nekk la ndax aw làkk kese la xam-xam la boo xamante ne ni wares na koo mën a kii wala itam euh, am na ñoo xamante ne ni daal jàpp nañ ni même bu fi dee am itam du doon école publique. waaw njàngaleem français mi moom naka jekk euh, ci jamonoy Serigne Touba ak murid yi njàngaleem français moom dafa amoon problème ak diggante murid yi ak ak ak ak ak ndax Jurbel wax nañ ne tubaab yi imposé woon nañ ab école. boo xam ne école français lay doon. ba ñu waxoon ko sëriñ bi ginnaaw mu diisoo ci ay boromi xam-xam ku mel ne sëriñ Mbàkke Buso léegi nangu woon nañu itam tubaab yi def ko fa ci seen biir ñoom ñu yóbbu fa seeni doom di jàng di wàcc di ñibbisiwaat ci seen biir kër yi baay su ko defee ñu man leen yar yarub diine bi ñu bëgg waaye itam ñi bëgg a jàng français tam ñu jàng français te loolu du yàq ci seen jàngum diine dara loolu amoon na waaye loolu ba mu amee itam yàggu dara ñooñu moom am na ci ñoo xam ne woon nañ mu ñoo jàng français loolu moom seen bëgg-bëgg bopp la woon waaye teewul euh, même duñu ay doomi sëriñ waaye ñu ñu jàng français la ñu ndax ku ñu wax ma surang yaakaar naa kenn ku ne xam ne histoire am ak jumaa ji kenn ku ne xam ne histoire am ak France ak diggante hmm. ne nga xamee ne sëriñ bi jógoon na fi jamono Cheikh Mamadou Moustapha foofu itam am na ñeneen ñu jàng ñoo xam ne mën nañoo doon ay doomi kilifa ay benn benn ku mën a si Cheikh Ahmadou Mbacké kenn ku xam na ne ku jàngoon euh, alquran mokkal ko am xam-xam ku am culture générale la woon daana wax ci langue yëpp te it moom ci boppam sax amoon na ab école français yaakaar naa euh, école français classique boo xam ne arabe français kese la woon amoon na ko ci biir këram gi ci Daaru Xulus waaye tam na fi tam ay arabe école arabe yoo xam ne li li wax arabe classique boo xam ne arabe kese la woon boo xam ne suñu Cheikh Gaynde Fatma moom moo ko fi defoon maanaam kon suñu Cheikh amoon na école boo du franco amoon tam benn école boo xam ne spécial français kese la raxut arabe te teewut na ay daare alquran kon si cheikh xamone na na façon daara yi wara am yépp mom bu ci amone nako amone na daara kay moy ki nga xamne munta jang ñu tarbiyee ko defar ko amone na daara alquran yo xamne dañuy jang mokal alquran ñu bari bari mokal nañ ci ci daaram fe ci darma ku ci wax sëñ Moussa Sylla ab ab jàngalekatam la sëñ Mbay jangale kat la won ci Cheikh Mamadou jangale kat la ci sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñu bare nañ ci daaram bari nga ni daara ja ma nga fa sëñ Moussa Mbay Longoor ñu ngi koy ñaanal mo yor barabu Cheikh Mamadou Moussa bi kat bu mag la mok ay rakam yépp ay kat lek ak ñeneen ak ñeneen ñu mëna kon sëñ Mourtala jàngalekat la yarkat la al azhar kenn ku xam na ne arab la lépp arab kon amoon na fi ay daara euh, daara si Ibnu Mbàkke soriwut dara mi ngi fi jàngalekatu alquran la woon jàngalekatu xam-xam la woon euh, jàngalekatu alquran yi bari woon na am na ñoo xam ne ñi woon ci biir dëkk bi lu mel ne gere am na ñeneen ñoo xam ne itam ñi ngi fereen hmm. kon jàngale ci boppam moom euh, naka jekk moom français bi nekkul luñ fi bañ waaye nag njàngaleem diini moo jiitu bu hmm. jàllee nag meneen mu ci waaye mën a teg rek sa yitte rek wala say bëgg-bëgg rek loolu moom mi ngi aju ci yow hmm. mais ñiy teqale privé ak public nag waaw loolu wax ji mooy yaakaar naa sëñ Bachirou junjoon na ko sëñ Bachirou li mu ci junjoon mooy dafa wax ne école publique xam nga dafa am lu loo xam ne diggante état ak li ñuy wax citoyenneté citoyenneté al wataniya ak ak ak irada dañoo xaw a nuróo léegi-léegi masalan dëkk bi dafa am autonomie boppam am mu yare ak nitam yarinu citoyen bi maanaam tibu élève bi mu bëgg tibu élève bi nga xam ne moom la état bëgg ak ak ak murit bi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg léeg-léegi day am contradictoire maanaam duñu bokk ay position sëriñ bi dafa am nu mu bëgg yare ak nitam état am nu mu bëgg yare ak nitam kon ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne ni nga bëgg yare sa nit kooku day jaadu ci nga yare ko sa nit léegi nag mu des ndax Touba sëriñ bi dafay génne daara yi dugal école publique yi nga xam ne boo amee sept ans rek da ngay di ko booleeg sam njàngam alxuraan comme ni mu amee ci yeneen dëkk yi loolu su amee originalité yoonu murit mais waxuñ loolu de par dañu wax ni école publique bi mën naa ñëw fekk si daara yi ñu ànd nekk ci. waaw loolu mën naa nekk moo tax na la loolu mën naa nekk. waaye comme ñoom liñ ci bañ rek. ak di ko ci ragal mooy. Mhm. seen seen seen seen njàngaleem cosaan daal moom mooy Sëriñ Tuubaa moo wax ne. xam-xamu alquran la bëgg mu jiitu ci ab xale. Mhm. mu dafa wax ne ku mënta mokkal alquran nañ ko jàngal sóoratu mulk ba suuf. Mhm. ku a mokkal alquran nag nee kaw suuf lu gën nga loolu muy gëm-gëm murit boo seen muy dox. ci biir Tuubaa loolu mën naa nekk soo jàngee sa alxuraan ba mokkal ko jàng sa xam-xam am na ci xale yoo xam ne tey jii euh, ay 12 ans la ñuy am jóge ci daara ji jàng xam-xam dugg franco arabe accéléré boo xam ne 3 ans ñu am entra wala ñu am. Hmm. seen certificat. Hmm. Hmm. te am na ci ñoo xam ne tey jii ñi ngi université am na ci ñoo xam ne fi ne nii am nañ seen master. te ci daara lañ jóge. waaw loolu kon moo tax kon aayewuñ ko fi. aayewuñ ko fi. waaw public bi itam liñ ci wax rek mooy sëñ Bachirou dafa wax ne. lim bëgg mu jiitu fi te sëriñ bi moo ko bëgg muy ku fi rekkal sëriñ Touba dañ fee indi woon ay école publique jamonoy sëriñ Saliou ci biir daa daayiratu Touba mooy fi ñuy wax Touba mosquée. Hmm. xam nga ñu bari dañuy jaawale. Hmm, hmm, daa am futu Touba mosquée. am yeneen quartier yoo xam ne ay dëkk lañu woon ku mel ne Daaru Karim. ak fu mel ne Kéra Mbay fu mel ne Euh, saam waaw yooyu ay dëkk lañu wax yaakaar naa loolu leeraloon nañ ko ci euh, émission yi jiitu mm-hmm. sëñ Fallou waxtu yu moonu dab fi ne nii ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm waaw kon daal maa ngi xam le ne am njàng moom fi yoonu murit mm. farata la lu sëñ Tuubaa taamu la moo xam xam-xamu alquran la moo xam xam-xamul islam la moo xam njàngaleem français la lu mu mën a doon tey tabax àddina te mënees caa wut àlaxira loolu sëñ Tuubaa dàq ko sëñ Tuubaa moom lim digle mooy nga kaweel si yitte ci àdduna ak ci àllaaxira su ko defee nag nga nekk modèle euh, boo xam ne da nga mën a taxawu sa jamono moo tax doomi Tuubaa yi hmm. soo xoolee ci politique ba soo xoolee ci adduna bi hmm. soo xoolee ci commerce loo mën a dem rek da nga fekk ne Serigne Touba ay ndawam maanaam desuñ ginnaaw ci jërëjëf Sering fallu sila Daraman di kat di gëstukat ci yoonu murit moo nekkoon sunu gan lañ doon dalal ni ngi koy buba bu baax a baax di ko gërëm itam naka nonu fii la yam yem Makumba Bey mo fare woon ci kàddu gi euh, ci euh, mixage bi ak montage bi Makhtar sambu ak euh, Aliou Ba di leen gërëm bu baax baax di len dig daje ci bi top topp ngeen wajali laahi maskani tuba abat mislasmia bi jaahi xayri man abat wajal ilaahi maskani tubaabaat mislas miyaa bi jaay xayri manaabaat ay waay ay waay ki def ndànk na def ndànk subhaanallah mbokk yi ay bés ci gannaaw accident yi bare woon na lool ci tali bi ba jaaxal askanu Sénégal te lenn warulu ko lu dul dawalin yu tegg niwul ak ñàkk sàmmonteeg charte code de la route ñu bari nak ñàkk nañ ci seeni bakkan di mbir mu doy bu askanu Sénégal bi yépp di nouvelle prévention routière bu Sénégal ci association bi ëmb compagnie d'assurance yi moo leen di jox ñeenti tegtal yoo xamante ni ku ko saxoo di nga dem ci jàmm jàmm bi njëkk mooy bi ndaxte vitesse amul benn njariñ ay ñaareeli tegtal bi mooy yéen dawal koto oto yi li lay war suul yi su ngeen sonnee wàcc leen seen oto te noppaliku xanaa kay loolu jafewul ñetteel bi mooy ku ci gëmmentu na wàcce oto bi te dakkal dawal bi loolu yombul ñeenteeli tegtal bi mooy nañu sàmmonteeg sarta code de la mu jeex tàkk nouvelle prévention routière au Sénégal Mon Lokolo, ak ministère des infrastructures des transports terrestres et aériens ak association des assureurs du Sénégal ak direction des assurances Nous, leen di digal ngeen ak dal ak tey ci tali bi ngir mucc ci accident yi ciy mbokk accident yi barina, nañu tey ci tali bi. Doudoune